Cheikh Mbacke Sakho xam nga ko. <laughs> waaw maa ngi koy gis nii ci. yaa ngi koy gis ni réseau yi waaw. nee na ni ngeen di teengale diine ji teengewut noonu. sangu farata jëlee sa saabu ak njàmpe nga raxas li takk sobe nga dem julli ji nee na julli yi ñaari rakk la waaye yéen fi nekk di ko teengal ak a taaweeg naan raxas wetu di joor ak càmmooñ ak julli ñeenti rakk eh, nangam nee daal loolu du du lu wér daal maanaam si gàttal. waaw kon kay dafa war a wax ne yonent bi moo ko teengal. Hmm. Hmm. ndax wax nit ñi boroom xam-xam yi dañoo jottali waxu yonent bi sallallahu alayhi wa kese ndax yonent sallallahu alayhi moom la yàlla yebal ba pare nag teg ay garde fuu ci yabal gi gis nga suñu borom bi mu yebalee yonent ba pare dafa ni wama daf ko njëkk a seedeel ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuxa ne leen kii ma leen yabalal du waxee bànneex du waxee bakkanam lu mu wax maa ko ko wax benn xam nga déjà weddi yonent bi danger mi ngi ci kon ndax heure boo ko weddee kon yàlla nga weddi ndax suñu borom da ko yebal ba pare ne kii ma yabal nag maa ngi leen di seedeel ne sama jaam la waaye du waxee bakkanam lu mu wax maa ko wax wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha benn ba pare mu tegaat ci ne wa maa aataakum rasulu fa xuduhu wa maa nahaakum anhu fantahu lu mu leen tigal na ngeen ko def lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi waaw léegi nag bu yonent diglee ba pare boroom xam-xam unanimité ñëpp ci lislaam laa wax te ñëpp di ko jëfee benn nit taxaw ne ñëpp juum sauf moom nañ bàyyi li boroom xam-xam yëpp mas a jàpp depuis ca saxaaba ya de même saxaaba yi sax nañ daan jullee njuumte la ba yegsi ci moom moom kenn kese moo comprendre ni yonent daan jullee te fekkeewu ko suñu asan est-ce lii sax ndax lii am xel mu rafet rek nangu na ko sax diir am xel moom mënoo nangu est-ce que si téere yi ba gis téere yi mu yër ñoo ñoo ko bind ñu juum ñi ñoo bind téere yooyu muy wax hmm. saxaaba yi mu wax ak taabiin yi ak mag ñi moom téere yi muy jàng nii ñooñu juum bay julli ñeenti ràkk ñoo ñu ko bind léegi ñaar moo mën a nekk mu continuer ñooñu juum nañu téere yi mu jàng wérul wala ñooñu daa am fu nu juum am fu nu juumul mu leeral fan la ñu juumul hmm. xool yenu juum mooy lan waaye erreur gënul rëy nga ne da ngay tàqale sunna ci biir lislaam mooy xadis doo ko jëfandikoo te ku ne xam ne ne boo jëfandikoowul xadis julli ñeenti rakk doo ko mën a am hmm. nodd doo ko mën a am pratique bi ñuy wax ci sangu farata dëgg la sax pratique wu sangu farata hmm. pratique bi du farata maanaam ñu naan la tàmbaleel fii nga raxas sa jumbax ba ci suuf. soo paree nga jàpp benn par benn. soo paree nga raxas sa wetu ndeyjoor raxas sa wetu càmmooñ wala nga raxas sa bopp ñetti yoon sax d'abord pratique boobu du farata. Hmm. boo ko deful du te sangu bi wér. Hmm. mais da ngay sangu moom paaka da ngay raxas fi sobe si nekk déedéet. Hmm. mais dañ naan la tey sama ndox tey ak sama saabu njàmpi dem sangu ba set wér na. déet déet déet saabu njàmpi du setal. ah déet déet saabu boo dugalee saabu njàmpe du dindi sobe boog sobe. dana setal ëpp bomb ah da si bomb bu baax. déedéet xam nga xëbal saabu nga bomb saabu. dégg naa la yow tilim ngay dindi si boobaa ab tilim waaye sobe. Hmm. dañu naan la ndoxum kese moo ko mën a dindi. Eh, soo jàngee laxdar yi Abdourahman ca buntu ba masala bi mu njëkk a traité. Hmm. dafa ñëw rek ne ab taharatu qismaani. Hmm. taharatul xabasi wa taharatul taharatul xadasi wa taharatul xabasi daan na nag. wala yasixu aljamiu illa bilmaai tahiri almutahiri alladi lam yataxayyar lawnuhu aw taamuhu aw aw raihatuhu bi maa yufaariquhu xaaliban ka zeyti wa samni wa dasami euh, kullihi wal wadex ilax dafa ne bu ñu ne laab mu ne ñaari xeeti laab moo am laab ci sobe maanaam nga set ci dindi sobe ci sa bopp ak laab ci am toj maanaam amoo njàpp waaye amoo sobe ba léegi ci charia laabu ko hmm. boo duggoon ci duus bi sangu ba set ak sa saaboog sa njàmpe ba set te jàpp woo ci charia laabu goo ba léegi mënagoo julli foog nga jàpp mu ne kon mën ngaa làpp ci sobe te doo laab pour julli hmm. mën ngaa laab pour julli ba pare laabaale ci sobe te fekk laaloo saabu laaloo njàmpe mu ne ñaari laab yii yëpp nag dindi sobe hmm. ci boppam ak laab ci njàpp ndoxum kese moo koy def ndox mu raxul dara ndox moo xam ni couleur ba du changer melokaan ba du changer xet ga du changer ci lenn loo xam ne dëkkul ak moom lu dëkkul ak moom parce que ndox nag bu dëkkee weñ bu safee weñ dañ la koy baal. Hmm. bu dëkkee suuf bu safee suuf dañ la koy baal la mu dëkkal bu ko soppee loola du garaaw mais lu mu dëkkul ak ni ki diw meew suukar hmm. lem parfum yooyu dëkkuñoo ndox waaw léegi nag. yow su fekkee nee nañ la ndoxum kese mooy dindi sobe lam ci jublu mooy dangaa jëm ci yàlla ñu bëgg kennal ga ngay woote ci yàlla ba léegi nga nekk ndox mu raxul dara te loolu dafay firndeel na sa jaamu gi sax yow da nga caa wéetal yàlla doo ko rax ak dara mais ci charia moom xoolal la tàmbalee ca yonent balaa wax de hmm. ba ci saxaaba yi ba ci taabiin ba ci taabii ba fii unanimité boroom xam-xam lislaam yëpp d'accord nañ ne ndoxum kese mu raxul dara mooy dindi sobe suuf Seex Mbàkke léegi nag est-ce que nit mën naa analyser la tàmbalee ca saxaaba ya ba fii ñu toog boroom xam-xamu lislaam bi ñépp juum sauf benn nit boobu mais benn nit boobu benn li mu wax si sangu farata daa mel ne maam dàqoo ko daal comme ça bu wuteem ndox rek bu pratiqué wuti sang mu wàcc am na am na mën ngaa jël si sio ndox ba mu fees hmm. nga dindi sobe si taq sa yaram nga tàmbalee ca bopp ba raxas ba yaram bi yëpp set. fexeel na fépp tooy. di nga am sangu farata. di nga am sangu farata di nga am sangu. ah kon ñu naan ak ak boo jotut fii sax da nga wax dañ laa wax nga yuti ab sarbet fexe mu boo jot ginnaaw geeg fexe mu nangam nangam. waaw pratique boobu dañ koo sopp rek loolu ci sunna la bokk. Hmm. waaye boo ko deful du tee mu wér. Hmm. soo ko defee mooy wér mi ngi mel ni tey ci njàpp xam nga booy jàpp da ngay tàmbali raxas sa loxo. Ah. galax ndiku sarax ndiku sëlma raxas loxo raxas loxo. masa bopp nopp tànk xam nga nii lañuy jàppee. Ah. boo ñëwoon safaane ko. Hmm. nga ñëw rek raxasu rek raxas sa tànk yi. Ah. daal di pare gàllaxndiku ko sa bopp sëlmu def nopp yi jaxase ko. Ah. bu cër yëpp tooyee njàpp mi wér na. mais nag bàyyi nga toftale bi sunna la bàyyi nga ko. mais du yàq njàpp mi kon daal li mu wax si xaw sangu farata daanaka bu fekkee ni am na lu ñu ko siy corriger daal mooy saabu bi. saaboog ñaam sango saaboog ñaam bi mais bu dul loolu moom c'est mais na si julli ga ñaari rakk moom li si doon dëgg bëriwul déedéet julli ñaari rakk mësoon naa am ci lislaam dëgg la ah kon waa ji waa ji xereñ na waaye xereñ borom xam-xam la de kon loolu ñëpp ko jàngi di nga ne xamoon nga ne julli mas naa nekk ñaari rakk kon moom foofa la nekk daa amaasiwul waaw moom nee na lu tax ñu teg ca yeneen ñaari rakk ak ku ko ci teg yonent moo ko ci teg yonent la yàlla jox ndigal mu teg ka ca yonent toog na màkka ay at ajiwul te montant kaaba gaa ci wetam. Hmm. toog na màkk ay at woorul toog na màkk ay at joxewul azaka julli dong la fa doon def ba mu demee Madina la saxaaba yi xëy mu ne leen yàlla nee na ngeen yekku ci woor. Hmm. yàlla nee na ngeen yokk ci azaka yàlla nee na ngeen yokk ci aji màkka mu xëy na yàlla nee na julli ñeenti raaka yi ñu yokk ci ñaar ñu ne déet mais lu tax ñu koy yokk hmm. te montant ki la wax ne yokkal moom moo la fi indil woor indil la leneen indil la leneen indil la leneen li charia bi nii ñuy jullee benn borom xam-xam yokk ko yonent sallallahu alayhi wa sallam moo moo ko jiitee saxaaba yi sax bal mais est-ce que nii rek fi yonent bàyyi woon comme ça julli suba. tisbaar euh, takkusaan timis ba timis ba géeg yooyu yooyu est-ce que yonent nii la ko fi bàyyee. te moo ko daan ñëw di ko jiiteel boppam saxaaba yi di ànd ak moom di julli sëñ Assane est-ce que mën nga imaginer yonent sallallahu alayhi wa di julli ndoog saxaaba yi ñaari rakk suba ñaari rakk tisbaar ñaari rakk timis. ñaar rakka tàkkusaan ñaar rakka gée yonent di ko julli ndoog ñoom ba génn àddina saxaaba yëpp kompaloo ko unanimité dem soppi li yonent bi daan def di ko def fii ñeent fii ñett fii ñaar sëriñ bi xanaa sax dana ci am benn ci saxaaba yi koo xam ne danañ leen sax waaye yonent daaw ko defee nii ah, mais ñoom ñëpp nan lañ mën a d'accord yi ci kompaloo yonent ñaar la daan julli ba génn àddina hmm. ñun nañ ko soppiwaat ah, te kenn contesté wul hmm. te montant bi yonent génne àddina dafa am ñu taxaw ne azaka bokkatul ci diine ne ñoom ñu joxe azaka parce que nee nañ azaka impôt la bu ñu daan jox yonent fii ñun ñu fi nekk ñëpp a yem kenn du fi yonent kon ku nekk na téye sa alal Babacar ne leen azaka ji day génn yàllaa ko moom kenn du ko fi dagg ñu lànk ne duñ ko joxe Babacar takk xare ah, ne ñii dañuy xeex ak ñoom gars yi na ko ëpp naa def ñii di julli di woor di def lépp mu ne man ku tàqale azaka hmm. ak julli ma tàqale sa bopp ak sa baat ndax yàlla fu mu ne aqimu salaat rek danaan wa aatu zakat bu ne julli leen joxe leen azaka waaw kon ku mënul bàyyi azaka bu ñuy dagg ci diine mhm. boo fekkoon ñu dagg ci julli ñaari ràkk dinga ko seetaan kon cest à ma jàpp ne nit bu réeree mën na xam ne dafa réer waaye am na lu gën a garaaw réer mooy gëlëm xam nga yow di nga xam gëlëm parce que nekkoon nga ci tool yi baykat dëgg day xam gëlëm est-ce xam nga réer a gën gëlëm nit bu réeree day laajte fu mu jëm soo gëlëmee <coughs> yow da ngay jàpp ne fii nga ne muy dëgg da ngay dem rek <laughs> da dem jàpp ne yaakaar ni ba léegi yi fi nga nekk yaa nga fa te loo gis da lay gën a firndeel ne fi nga jëm noonu waaw moo tax gëlëm baaxul <laughs> day mel ne ku réeru kay moom nag daa mujj defe ne ñëpp a réer hmm. moom moo ne ci dëgg or ko dafa gëlëm na moom daa gëlëm dafa gëlëm man loolu laa gëm waaye julli ñaari ràkka moom yonent salaa sallam dindi na ko ba muy dund non seulement wax na ko waaye pratiqué na ko ci kanamu saxaaba yi sangu farata moo ko jàngaleel boppam mu ngi ci ay xadis yu wér waaye koo xam ne boo waxee mu ne la xadis wérul c'est ça le problème bu doon boo soo indee xadis bi mu ne la yonent waxu ko wala bu ko waxee it concerné wul julli di daal parce que ñun alxuraan kese la ñuy jëfandikoo waaw xam naa ne kon jeex na waaye ginnaaw yaa ngi si sangu farata sax dafa am benn waay boo xamante ni ne dafa am fu mu demoon ñëpp bi ñibbisi soxna si ñëw tijjil ko mu dugg di mu gis soxna si gis ko muy sangu mais soxna da ko yër si bi di ko xool gis ko muy sangu farata waaw bi mu sangu farata daal di ñëw julli tëdd waaw ne soxna si ne ko lu tax ngay sangu farata foo demoon ak lan nga defe woon bay sang farata <laughs> ñu am si problème loolu est-ce que war na soxna si <laughs> <coughs> soxna si day <coughs> mënoon na ko bañ a lu tax ngay sangu <coughs> donte waa ji it su ko neexee mu ne ko du dara parce que sangu farata nekkul ne boo séyee nga ko war a def. Hmm, mën na ne ko chaque jour maa ngi koy def. bien sûr yow yow fii mu ne nii mën nga ñëw nii bëgg a yeesal sa jaamu yàlla rek nga ne xaaral yëg naa ne samay bàkkaar dafa bare xaaral ma sangu sunna mais su boobaa nag sangu ba dootul tudd sangu farata. Hmm. sangu sunna lay doon ci yow. su ko defee nga sangu sangu sunna ci yow. def say ñaan def say jéggalu mu jeex. Hmm. léegi nag soxna si xam naa comme dafa jàpp ne ku sëy mooy sangu farata. Hmm. mu jàpp ne mbaadu dafa mooy ci àll bi. <laughs> mu ñëw di sangu di ko sangoo fa saal bi am. waaw waaw waaw <laughs> ah da ko waroon naan ne ko nga sangoo ko. fa nga nekk fa nga war a sangoo doog a ñëw. non non na rafet njort rek. ah na rafet njort waaw ah, mën na am waa ji dafa bëgg a yeesal ak tuub. Hmm. mën na am it dafa yéene jaamu yàlla rek. Ah, daa wala mu continuer di ko yër ba xam yeneen suur yi dina ko def wala. waaw non na bàyyi yër bi nag wóorul <laughs> loolu loolu kenn du ko lu ñut moom daal na rafet njorto rek jàpp ne <laughs> deful dara <laughs> ah. waaw ba keroog leneen di ñëw parce que yooyu moom xajul ci diggante ñaar ñuy sëy ah, su xasee am rek réeroo day am am na solo